mbooloo mi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi leen nuyu bu sell bu mag bu diine bu mbokk bu taalibe bu xarit di leen gërëm di leen sant ci daje bi nu daje muy daje yàlla ak yonent bi ak sëñ bi waxtaani lislaam ci moogo bu am solo شيخ أحمد البنبا محافظ ومجدد محافظ مجدد بعد بو خامني دنجكو ليرال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 duñ ci jógee di ci taw di ñetteelu mu jëg dit bi di lu ñu wuute moo di ñii ne ne al baqlaani la ñi ne al suluki la ñi ne al israyini la buñ ci jógee mu jëg bi téeméeru juróomeel bi kenn amu ca werante nee ñu limaam Ghazali yi Abu Hamid Muhammad bin Ghazali dégg ngeen sëñ Tuubaa di ko cité lu bari ci bindam ñooñu ñëpp ngir bala mu af ci Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu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 li tax mu dugal ko ci jaam ñi ni yenn yi baree taw wuute te ëppante kenn ku nekk mu sàkkal la fa nga jëm ak fa lay jaar loolu la tax mu am ñi mu tànn ci biir jaamam ñi teg leen yan boobu ñu tuddee tëj ji nga xam ne ñooy mu jaddi doole yi xam ne kon ni mbiru suñu borom wuutee ni mu dajalee lépp ci lislaam ci zahir ak ci baatin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 aduna bi mëna mëna mën eh, man di dox lépp lu ñu wo ñu am ñu fa taxawé di matal lool le loolu moo tax aduna mëna a wéy wi yi bil adli qaamati al ardu wa samawaati asamaan ak suuf ci équilibre la leen yàlla taxawale équilibre boobu doom aadama am na ci participation ak nam ko ci amee daan ko waxtaane ci bi conférence bi insha allah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 séddale ko ci yonent yi ngay séddale ko ci téere yi ñu wàcce ba indi ci alquran téeméer yoo xam ne juróom-ñeent ba feeñ na benn bi nëbbu ñu indi benn boobu nga xam ne moo ko juróom-ñeent ba juróom-ñeenteel séddale ko ci mboolem lami wu mu doon nga xam ne borom basira dana xam bu mësula dégg ku wax lami woowu dana xam nan la ca yàlla tudd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 القرآن يقول لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا لم يجن نحن أقربي أبجيجي بنحن أقربي دورون أي خلمة جيجي نيوكات يرين جيروم ياري جيج جيروم ياري خمجين بات لبو خمجين دي تكيك باريل رك دي نمو باريل تنمو يتلمبك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 موسى عليه الصلاة والسلام بمونو لمي جيف يي خضر دي جيف داغا خامني كات نيما وخال ني موسى تي اولو الازمي لا بوك يونت لا خام خام بو اولياء وي ام ني نكو دوني تي نيوم تا اولياء وي سين بوك لي علماء وي بري بري بري خام خام مفيدين العربي نينا اولياء وي ام نيو خيتي خام خام يو خامني جيروم نياري جيروم نياري تيمير جيروم جيروم بن تيمير اك جيروم بن جيروم بن لا علماء وي خامي تخ توري خام خام يوي بري خام خام خام دان وقتانه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 ak seen i atiqadaat ak si at yi ñu am ci diggante boobu mujaddid nag ulama yi xam nañ ko waxtaane woon nañ ko ndax hadis yonente sallallahu alayhi wasallam moo ko feeñal ulama yi gëstu ko gis ñi nga xam ne ñoo ni mel ba ñu dikkee matal charte ya al jalaalu suyuti wax na leen moom abdurahman wa shart fi dalika an tamdi al mi'a huwa ala hayatihi bayna al fi'a yusharu bil ilmi ila maqamihi وينصر السنة في كلامه وأن يكون جامعا لكل فن وأن يعم علمه أهل الزمن وأن يكون في حديث قدري من أهل بيت المصطفى وقد قرئ وكونه فردا هو المشهور قد نطق الحديث والجمهور بقنتي شرط بيدك مجدد تمر أبي بروي تامر نفق ميدن ناي نيت كو خامني واجا مونوم نيت خامنا يو تلو خام خامم اك ماتو خام خامم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 abul hasan shari ak ibnu sarayji ñuy ñaari mu jaddit ñu bëgg kon itam tuddee kii ak al-Baaqlaani ak al isra al Isfirayini ñi ay mu jaddit waaye li ëpp doole ci wax yi mooy kenn doo nga lay doon buñ ko seetee buñ dee jël ci gën a siiw abul hasan ashari ak al-Baaqlaani la ñuy jël am na limaam al-Xasaali limaam al-Xasaali moom kenn amul sikki sàkk ci ne mooy mu jaddit ci téeméeru juróomeel bi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 مجدد نك نيوانا دو اندي شري ابو بكر شري محمد صلى الله عليه وسلم رك لي علماء نتو علماء الحقيقه داجي نانتي ني يونس امو تيتي ساتي ني اي ملائكه نيو سي موم دي اندي شريعه وليو ملائكه دا نيو سي موم علماء ندي كون نيو ووتي سي ني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 يونس بي امول دارا لوم ديي وات نينن جوليت ني الا ان يوتي الله عبده فهم في كتابه لودن مو ديد لو كو تيري بي خام ني ني ديد ني ني شيخ احمد بان نينا سون بروم فيرل نكو القران فيري بو خام ني ني ني ني ني ني ييمو نين سي تا جاخال نالين كون بو ني مو ني ديد ولا قطب الخوف روح القدس دا نكو دغ رك سون بروم دا نكو جوخ سي ديد سي تيري الله بي نده تيري بي معنى يسمى بجيح يرنت بي صلى الله عليه وسلم بيسا عنك بكاي ما من حرف من حروف القرآن إلا لها ظهر وبطن بين حديثنا للبطن بطن إلى صفة أبطن دخل حرف ونش أعرف القرآن ولا آية جنش آية الأخران أمن نبي أم بتي بي أم نتنكتة أم نتم يموائي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 jaamu yàlla ak jooy rek la fa daan def ba di teg di toroxlu fu mu toll daf daan wax ne dem fekk buur buur adduna yi nga xam ne jubuñu donte da nga koy digal yiw tere ko lu ay lu araam it xasara nga ca ngir maandu bu maandu woon ba xam ne awra la nekkoon jàmm gi mu may jullit ñi ci ittewoo leen xañ gi mu xañ boppam jàmm ngir ragal yàlla ak xalaat ëllëg amul benn bëgg-bëgg wala benn yitte wala benn xemmanteef wala lenn benn jublu